site sans sn point com euh, lii nag bokk na ci jàngat bu njëkk bi nga xamante ni moom lañ taxaw am ko ab seetlu fële la nga xamante ni moom moo di madinatul salaam euh, ci gàmm googu nga xamante ni Cheikh Béthio Thioune daf ko daan wëyal foofu noonu di ko fa amal euh, liñ fa gën a remarqué nag du lenn lu dul bâche bu yanj bi nga xamante ni ak ndekki lu yanj yi nga xamante ni Cheikh Saliou amal na ko fa pour waajal gàmmu gi ci guddik Seydina Mohamed gi wante buñ paree ci lool rek dañu jàlloon ci alentour jour bi di def ay vérification maanaam ab seetlu euh, di xool ndax ki nga xamante ni moom mooy euh, soxna Aida Diallo amal na gàmm gi ñu doon wax da koy amal wala du ko amal wante accès ci boppam sax foofu noonu euh, lu jafe woon la ndax dafa mel ni bunt bi dafa am sax ñu ñu fa teg remarqué nañ fa ay gendarme yu bari yoo xamante ni ñoo ngi fa taxaw porte bi nga xamante ni fa nga war a jaare sax pour dugg ci biir kër gi dafa am ay garde yoo xamante ni ñooy taxaw def ab seetlu pour képp ku war a dugg oto sax pour mu jaar ci côté boobu euh, lu jafe la ndax gendarme yi ñoom ñoo fa taxaw euh, def li nga xamante ni moom mooy di sécurité bi mu mel ni ki nga xamante ni mooy euh, soxna Aïda Diallo rek yoon bi bi bi passé dafa dafa daw lépp loo xamante nii rek média la ndax amul benn média boo xamante ni tey am na accès ci alentouru këram googu noonu waxantuma laak nga fay dugg quelques images yi ngeen xamante ni moom lañ leen di wan ni moom lañ fa jot a jël mu mel ni rek dal ba am na ñoo xamante ni ñoo ngi fa am na ñu fa dal ñoo ngi togg seeni añ di togg seeni reer ak euh, lépp euh, teg nañ fa ay sono aussi gis nañ li nga xamante ni moom moo di benn genre orchestre tamit ñu dugal ko ci biir euh, xamuñu ndax ñiy jàng xasida yi wala ñu koy durus ñoom ñoo ko fa war a amal maanaam lu bëri daal am na fa wante jotuñu koo gis bu baax li nga xamante ni moom moo xew ca kër ga yëpp wante mën nañoo jàpp ni rek nit ña ñoo ngi dugg ak génn wante du ñëpp ñoom ñoo ko fay def ndax dañoo taxawal ay garde ak ay gendarme ci alentour kër gi yëpp ginnaaw ñun fa jot a déglu ci ay explication ñoo ñu doon leeral que ni voyage boobu nga xamante ni moom lañ waxoon ni soxna Aïda Diallo daf ko amaloon euh, bi coow li jibee ba nga xamante ni sëñ Mountakha Mbacké génn na fi euh, araftu ko dànkaafu ko ci jëfin wi ak doxalin wi nga xamante ni moom bëggoon a doxali euh, ci yoonu murit bi am na ñu bëri ñu nekk foofu def ci ay témoignage euh, waxi que ni soxna Aïda Diallo mosul génn fi nga xamante ni moom moo di territoire Sénégal bay dem euh, bitim réew donc kon mënoon na jàpp rek ni moom da jaabante diggante Thiès ak fi nga xamante ni moom moo di këram gii nii ci Madinatul Salaam ba tey jii nii rek fa la nekk di amal li nga xamante ni moom moo di gàmmu gi waaye gàmmu gi nag duñ ci mën xuus lu bari ndax jotewuñoo dugg accès bi nga xamante ni moom lañu waroon a am pour dugg ba ci biir kër gi mujj ñu ko am mu mel ni rek presse bi yëpp sax la ñu interdire foofu noonu. parce que boo seetloo ba mu amalee li nga xamante ni moom moo di euh, màggalam ga fële na le ca ngaabu presse bi yëpp amoon nañ fa accès waaye bii paa ci gàmmu gi kenn amu fa accès kenn mënul dugg ci li nga xamante ni moom moo di euh, territoire am bay jege këram googu noonu ca Medinatul Salaam. Lumière du Sénégal. Bienvenue dans le monde de la lumière et de la décoration lumineuse. Notre showroom spécial vous propose un large choix d'éclairage direct, indirect, des lampes de bureau, d'éclairage de plan de travail, des lumières et décorations pour vos maisons, bureaux, salons, salles de bain et cuisine avec de magnifiques spots d'intérieur et d'éclairage mixte ou d'éclairage directionnel. nay leer lamp yi ñu am kenn amu ko li ñu am ci éclairage mënoo ko gis benn boo duggee ci suñu showroom da ngay yaakaar ni yaa ngi dans la ville lumière te yaa ngi fii ci réew mi fii ci Sénégal bu leen fàttali dañoo am ay applique murale am ay bandeaux lumineux na ñu du plafonnier au ras du sol lumière indirecte et décorative que dire du luminaire laba jour qui produit un éclairage décoratif par le biais de jeux d'ombre et de lumière lumière du Sénégal ñoo ngi leen di xaar am ay njëg yoo xam ne mënu leen ko am fenn ñi ngi nekk rue 22 angle 21 face boulevard Gueule Tapée téléphone 33 33 822 21 70 35 Petersen avenue Émile Badiane 33 842 65 61 avenue Lamine Gueye angle Ngalonou Diouf 33 822 25 37 la lumière du Sénégal votre partenaire de confiance ban jàngat nga am ci décision bi nga xamante ni xalif général des Mourides moom la mujjee woon génn ginnaaw coow loolu nga xamante ni xewoon na ci màggal gi ci diggante Aïda Saliou ak euh, leneen yoo xamante ni xewoon na ci biir ban jàngat nga am ci taxawaay bi nga xamante ni euh, sëñ Mountakha Mbacké moom la ci taxaw. xam nga yow loolu sawaay dinaa la ci leeral benn mbir <clears throat> man dama laa wax léegi ci sama biir wax ne la ma ndigal laa jëfe sëñ Mountakha nag li mu wax ci loolu ñu ñëpp dégg nañ nee na ñooñu. bu doon ci lislaam la nu ne ñu ne waaw ñu ne dañoo waroon jël ay jaasi cor leen nee na nag comme loolu mënatuñ ko lin mën mooy wax léegi nag li mu digal ñëpp mooy ñu jël leen def leen ci sën ba sën ba ci ñi ko xamul mooy mbalit mi te man nag du ma wax ci mbalit xam nga mbalit moom maanaam di ci wax day xaw a métti loolu moom duma ko man ndigal loolu laa jëfe sànni ca mbalit ma laal laa def fan macha allah wuutu bi nga xamante ni seen mag Cheikh Saliou Thioune moom la wuutu seen baay ah, ah, nan ngeen ko jàngatee ndax moo ngi ci tànk yi waaw wala déet. mu ngi ci tànk yi ndax njàngale mi dafa yomb moom li mu daan def bu fekkee ni pratiqué nga ko rek te ngay mën a ñëw tegu ca tànk woowu te pratiqué ko pratiqué na ko mooy ak cant la Cheikh Béthio moom moo sant bañ tuddee ñu cantaakoon yi cantaakoon mooy sant katu yàlla kuy sant yàlla kon moom ci cant googu rek lañu taxaw. sëñ saaliw nag moo nu jàngal luy ak cant nee na da ngay bernde bernde rindi togg sa ñam yu neex de bëri di ko seddale te doo ci am xëj ak seen boo paree nee na da dem ca mbooloo ma wax li la yàlla defal ñun ci loolu lan ne ndigal loolu it ci la ñu sëñ Muntaxa woowaat ñu ànd ko ak Serigne Cheikh Saliou mi nga xam ne mooy sunub sëriñ ci loolu duñ ko gën kon moom mu doxal mission bi day yomb ndax la bàyyam tegoon rek ci lay teguwaat te bu ci tegoo ñun ñëpp ñu ànd ci ak moom Ah, dañoo dégg fii ak démb ba tey ñu ni ah, ki nga xamante ni moom moo soxna Aida dafa yabal ay lu toll ci ñeent fukki natt jëmale ko fi nga xamante ni moom moo di Madinatu Salaam yow loolu ban jàngat nga ci am. saa yow xanaa déggoo li ma wax ci mbalit mi <laughs> man déggoo nee naa la sëñ Mountakha dana ñu jël leen sànni ci sën ba waaye yow sën di nga ci waxtaan wala ngay lijjanti li xew ci mbalit ma ah duma ko def fii may waxee yow xaw ma ci dara loolu ndax ba ba sëñ Mountakha waxee ndigal ne li ma leen digal mooy ngeen jël leen sànni leen ba ca laa paree loolu man man mbalit moom du ma ci waxtaan wax dëgg yàlla. internet sans limite nag bokk na ci jàngat bu njëkk bi nga xamante ni moom lañ taxaw am ko ab seetlu fële la nga xamante ni moom moo di madinatul salaam euh, ci gàmm googu nga xamante ni Cheikh Béthio Thioune daf ko daan wéyal foofu noonu di ko fa amal euh, liñ fa gën a remarqué nag du lenn lu dul euh, bâche bu yanj bi nga xamante ni ak ndekki lu yanj yi nga xamante ni Cheikh Saliou Thioune amal na ko fa pour waajal gàmm gi ci guddik Seydina Mouhamed gi wante buñ paree ci lool rek dañu jàlloon ci al alentour bi di def ay vérification maanaam ab seetlu euh, di xool ndax ki nga xamante ni moom mooy euh, soxna Aida Diallo amal na gàmm gi doon wax da koy amal wala du ko amal wante accès ci boppam sax foofu noonu euh, lu jafe woon la ndax dafa mel ni bunt bi dafa am sax ñu fa teg remarqué nañ fa ay gendarme yu bari yoo xamante ni ñoo ngi fa taxaw porte bi nga xamante ni fa nga war a jaare sax pour dugg ci biir kër gi dafa am ay garde yoo xamante ni ñooy taxaw def ab seetlu pour képp ku war a dugg oto sax pour mu jaar ci ci côté boobu euh, lu jafe la ndax gendarme yi ñoom ñoo fa taxaw euh, def li nga xamante ni moom mooy di sécurité bi mu mel ni ki nga xamante ni mooy euh, soxna Aïda Diallo rek yoon bi bi bii passé dafa dafa daw lépp loo xamante nii rek média la ndax amul benn média boo xamante ni tey am na accès ci alentouru këram googu noonu waxantuma laak nga fay dugg quelques images yi ngeen xamante ni moom lañ leen di wan ni moom lañ fa jot a jël mu mel ni rek dal ba am na ñoo xamante ni ñoo ngi fa am na ñu fa dal ñoo ngi togg seeni añ di togg yóbbu seen i reer ak euh, lépp euh, teg nañ fa ay sono aussi gis nañ li nga xamante ni moom moo di benn genre orchestre tamit ñu dugal ko ci biir euh, xamuñu ndax ñiy jàng xasida yi wala ñu koy durus ñoom ñoo ko fa war a amal maanaam lu bëri daal am na fa wante jotuñu koo gis bu baax li nga xamante ni moom moo xew ca kër ga yëpp wante mën nañoo jàpp ni rek nit ña ñoo ngi dugg ak génn wante du ñëpp ñoom ñoo ko fay def ndax dañoo taxawal ay garde ak ay gendarme ci alentour kër gi yëpp boo seetloo sax euh, ginnaaw ñu fa jot a déglu ci ay explication ñoo ñu doon leeral que ni euh, voyage boobu nga xamante ni moom lañ waxoon nii soxna Aïda Diallo daf ko amaloon euh, bi coow li jibee ba nga xamante ni sëñ Mountakha Mbacké génn na fi araftu ko dànkaafu ko ci jëfin wi ak doxalin wi nga xamante ni moom bëggoon a doxali euh, ci yoonu nekk foofu def ci ay témoignage euh, waxi que ni soxna Aïda Diallo mosul génn fi nga xamante ni moom moo di territoire au Sénégal bay dem euh, bitim réew donc kon mënoon na jàpp rek ni moom da doon jaabante diggante Thiès ak fi nga xamante ni moom moo di këram gii nii ci Madinatul Salaam ba tey jii nii rek fa la nekk di amal li nga xamante ni moom moo di gàmm gi waaye gàmm gi nag duñ ci mën xuus lu bari ndax jotewuñoo dugg accès bi nga xamante ni moom lañ waroon a am pour dugg ba ci biir kër gi mujj ñu ko am mu mel ni rek presse bi yëpp sax la ñu interdire foofu noonu parce que boo seetloo ba mu amalee li nga xamante ni moom moo di euh, màggalam ga fële nale la ca ngaabu presse bi yëpp amoon nañ fa accès waaye bii paa ci gàmmu gi kenn amu fa accès kenn mënul dugg ci li nga xamante ni moom moo di euh, territoire am bay jigee këram googu noonu ca Madinatul Salaam